xamoon nañu kenn du ko voté bu ko defee ñu jàllale boobu nit retiré nañ ko mën a mën a mën a voté li ñu bëgg a voté. d'accord Birame dama bëgg ñu ñu ànd ak tuuti li si Macky xam nga ma je donne un exemple aujourd'hui nous avons supposons on a parlé du du du de Karim Wade on a parlé de Khalifa xam nga ñun notre combat notre combat. je t'ai dit dialogue 2019 bi lan la indi pour ñun rien d'extraordinaire à part c'est important c'est extraordinaire ça nous a en tant que parce que man bu defoon beneen xeetu élection j'imagine que les communes ne vont pas m'élire biñ quand on a laissé ça aux populations ils m'ont élu on est d'accord c'est même si xam nga loolu xeeb nañ ko topp. même si dama ne xam nga xeeb nañ ko. Mm-hmm. xeeb ko moo tax ñu ko bi ñu génne ci dialogue bu ñu def. sumbaat xeex bi di xeex parce que li ñu war a soppi bari na. xam nga ñun ke moom par exemple durant le dialogue xam nga quelle est la position que je défendais moom la déchéance des droits politiques et civils doit être laissée aux juges aux seuls juges. Mhm. conformément à l'article 34 du code du code pénal. bien ma ma ni su ma leen suñu leen wax wanoon filmu dialogue bi. Mhm. da ngeen naan c'est pas possible xanaa lii du dialogue bi la ñu ñu foog. dama ni c'était ça mon combat vous parlez dialogue bi presque à deux reprises Benno a failli claquer la porte en disant qu'on ainsi de suite ainsi Benno laa wax c'est le représentant le dialogue a été d'une virulence mënu ma ko nette mënu ma ko Benno mi woote dialogue moo naroon claquer la porte déggu ma ne va le demander nga foog ni Oumar Cissé qui est plénipotentiaire de taxaw durant ce dialogue boo ma yóbboo assemblée assemblée discours ba même assemblée boo ma dugalee ci guddi gi dialogue boo ma wooyee Sen TV moom lay am boo ma wooyee 7TV moom lay am ça ne parce que je ne peux pas changer de posture ça fait 45 ans que je travaille sur une même logique je dis dialogue bi je def je suis plénipotentiaire de Khalifa je défends mordicus que même la déchéance c'est dans notre note la note qu'on a transmise nous au dialogue dialogue 2019 on a que ça bi ñu génnee dialogue lu ñu def lu ñu def créé yooyu bi xeex dialogue bi on demande 10 on si même s'il y avait que un ñu téye génn xam lu ñuy def continuer xeex bi pourquoi les gens peuvent croire que après bu ci jógee xeex bi waratu la mais xeex bi tey la la gën a war c'est ce qu'on a fait en 2019 on doit continuer à faire on était le président Khalifa Ababacar s'est représenté taxaw dans F24 devait continuer à le représenter dans Yewwi Askan Wi pour d'autres conquêtes mais il y a lii nar ñëw moo gën a moo a délicat les élections présidentielles qui qui viennent donc xam nga lu tax élection locale yaa ngi nii derrière nous malgré toutes ces combines on les a compris et on les a tam on y fait quasiment mort la poussière législative bi donc les seuls baromètres mooy yooyu présidentielle bii di ñëw il va il va perdre dama ne il nous tendra des pièges et on continuera ces pièges li mu am na ñu am borom xel ñun am na ñu am borom xel ay crédibilité ak vécu élection locale yi passé qu'est-ce qui s'est malgré tout ngeen di seen temps en politique qu'est-ce qu'on lui a fait fait mort les les jël jël prends l'exemple des des cinq grandes villes les quatre sont contrôlées par Yewwi Yewwi Askan Wi assemblée nationale bi passé quatre-vingt Yewwi Wallu où est talent politique de Macky Sall élection présidentielle bi ñëw on lui fera mordre la poussière il n'y a aucun doute là-dessus bàyyil ma wax la benn affaire xam nga quelle la constance dans ce pays la constance dans ce pays c'est une personne qui s'appelle Macky qui prend continuellement les institutions et qui l'écrase sur des citoyens qui veulent être candidats à l'élection présidentielle ça c'est la constance mm -hmm. c'est la seule constance mm -hmm. ça qu'est-ce que ça qui en a fait les frais d'abord Karim Karim mm -hmm. après Khalifa et la tendance bu le président Sonko il va prendre bu bu dul lii mu wut leneen bu dul lii mu wut leneen parce que sa tentative c'est de dire il ne faut pas qu'il participe à l'élection présidentielle rappelez-vous en 2019 avant l'élection présidentielle kan lañ foogoon ni bu bokkee ci présidentielle bi rek mën na mën na gagner élection yi Khalifa Ababacar Sall hmm. donc il a pas de il nouveau sous soleil c'est comme ça qu'il procède il le fait depuis longtemps mais depuis que Yewwi Askan Wi a été créé on lui faut mordre la peau <coughs> continuellement on l'a fait au local même s'il a gagné beaucoup de localités mais vraiment fi mu njëkkoon visé on lui a fait perdre cela on ñun nañu ñun Yewwi Askan bi ak les autres nañu am maturité ak lucidité on va vers les élections présidentielles il y aura beaucoup de candidats parmi nous ça ne veut rien dire on l'a prévu dans la charte c'est même bon c'est même bon uh-huh. rien n'est perdu uh-huh. il a retenu trois ans Karim en prison deux ans et demi Khalifa en prison qu'est-ce que ça veut dire c'est c'est c'est dans la marche des choses ça ne fait pas abdiquer les gens il est en train de de de de de garder le président Sonko dans cinq mois Khalifa le président Khalifa Ababacar Sall président de la République du pour constituer un gouvernement Wallu Yewwi Yewwi Wallu c'est pas une éventualité c'est pas possible pourquoi on ne réfléchit pas nous en tenant compte de tous les paramètres pour nous dire que qui peut dire que aujourd'hui Yewwi Askan n'a pas eu ces victoires que je viens de relater c'est des victoires réelles elle en aura encore elle en aura encore mais il nous faut beaucoup de lucidité il ne faut Super. pas qu'on s'autodétruise. Super voilà.